les deux chefs. waaw les deux chefs <laughs> les deux chefs ndeysaan euh, gis nga xam nga loolu aussi effectivement ça fait partie des premières tâches noires ouais. du régime en place mm -hmm. et c'est quelque chose qui aurait évité et je pense que le le, le problème ou l'origine du problème dépasse les deux chefs les ah, deux chefs euh, euh, sinon ce qu'on peut dire mooy affaire aussi formulaire société civile bi parce que ah waaw koy wax. aussi dañ leen daan dégg si si wax. wax nañ si non yow da gis naa lu ngay bind ay sorties individuelles mais li nga doon li ngeen par exemple élection yi gisoon nañ ngeen amoon ngeen benn présence bu nga xamante ne ak tamit bu ñu Macky Sall bu mu reculer bu mu reculer élection yi am ay euh, comment ça s'appelle euh, il y a deux ans mooy suñu milliards du rees. gis nañ tamit ni ngeen ni ngeen taxawoon mooy par rapport ak fonds force mooy 1000 milliards yi. Mm-hmm. mais bii nii dañuy tuumaal kenn ne bon voilà dafa def. ay marché non non xam nga li xew fii. bokkul loolu laa bëgg a wax. xam nga la tuumalante. waaw ah, dañuy tuumal c'est-à-dire pour man pour le plan légal moi j'ai pas parce que ku xam ñuy organiser marché public au Sénégal xam nga ni foofu nit ñi war ñu def lu leen neex. Mm-hmm. parce que y c'est c'est c'est le domaine. de transparence boo xam ne ni ci la ci la ñu njëkk gën gën a xuus ci Sénégal xam nga réforme des marchés publics yi ngi am dans les années début deux mille hmm. deux mille deux te après loolu moo jur euh, création ARMP ARMP te ARMP bu ñu koy créé dañ ko créé selon un modèle boo xam ne man dama si liggéey lu bëri euh, parce que transparence internationale moo ko développé woon qu'on appelle le euh, le modèle du pacte d' intégrité hmm. pacte d' intégrité mooy lan daf ne léegi dans les affaires des affaires publiques il faut pas seulement que ce soit l'État à côté de l'État il faut mettre le secteur privé concerné parce que marché yi c'est le secteur privé qui les sollicite mm. mais également la société civile pour être veille et vigie alors donc donc moo xam moo xam bu ñu def ARMP noonu lañ ko tëggee woon ah. moo taxoon ARMP dañ ne la c'est une composition tripartite et paritaire tripartite état secteur privé société civile et paritaire ku si nekk même nombre de représentants ngay am trois gouvernements trois secteurs privés trois sociétés civiles ñooñu ñooy composé euh, conseil yu euh, kii euh, autorité bi. Mhm. ba dëkk yi ne ko juste ba niveau de de de DSMP ak de l' autre l' autre structure en charge des gestion des litiges. Mhm. dégg nga donc c' tellement organisé ah, maintenant ensuite. tout est transparent cest à si seen site ñoom ci vas trouver tous les marchés ba pare marché bu ñu amee problème ak procédure yi bo xam boo boo boo compétiree nga am problème ci marché bi am nga possibilité nga daal def recours même recours boobu ak gestion litige tout est tout est toute est tout est publié aussi n'importe qui lambda am nga possibilité nga def recours systématique pour dénoncer un marché qui n'est pas irrégulier wala et cetera mm-hmm. donc les mécanismes sont très transparents et existent et organisation bu nekk am nga am nga sirool mhm. li ci ab te ñun yàgg ko xeex te métti lu ko mooy depuis 2010 déjà la Ablaye Wade njëkk a def les réformes déconsolidantes en matière de transparence sur l'ARMP mais boobu bu ko defee dañu jugoon xeex ka ne ko non lii bu ko defee du baax et cetera et cetera à l'époque 2010 déjà comme man j'étais au forum civil on, on euh, s'était levé sur ça. ay mhm. Birahim Seck Mohamed Mbodj était là à l'époque et parce que Birahim moom moo gënoon nekk surtout euh, représentant société civile ak ñeneen foofu. Mhm. moom moo gënoon engagé ci question de marché public. ba tey nii booy seet daf ko suivre. Mhm. parce que daf ko xam daf ko dund de l'intérieur xam évolution bi ak aussi failles yi si am. Macky Sall bi muy ñëwee il a fait la même chose moom moo fi mu ne wooy bi mu bëgg defee PSE bi en entre ay 2014 ba war ko commencé exécuter gars yi naan ko woy marché yi dafay yéex parce que procédure marché passation de marché dañu compliqué mais moom il n'avait pas compris wala boot il le voulait comme ça mm-hmm. que ni ce sont des ce des conseils de résistance parce que gars yi xam nañ ne marché public yi transparence bi du leen permettre ñu def seen yëfu euh, euh, nu mu talati yooyu ñu def léegi ils ont amené le président à théoriser l'efficience di ko comparer ak transparence alors que mun nga am inefficience dans la gestion des marchés publics te du yàq dara ci transparence bi nga war a def donc loolu moo indi yeneen réforme yu bëri yoo xam ne am na ci euh, ba nga xam ne ni li ñuy wax marché gré à gré hmm. ak entente directe dafa gën a yomb tey jii nii hmm. dégg ci biir loolu aussi nga am euh, la loi sur le partenariat public privé yooyu yëpp nekk yoo xam ne ni dafay gën a yokk wàññi wàññi l' espace de transparence parce que day gën a euh, permettre euh, autorité contractante yi ñuy dem di def ay gré à gré wala marché euh, entente entente directe mm. mais mm-hmm. même loolu gré à gré entente directe c'est réglementé si je me trompe c'est l'article 77 ou 17 de de de de de l'ARCOM mm-hmm. tu vois c'est réglementé donc man li ma dégg ci waxtaan bi gis naa ne en ce qui concerne le ministre li wax nee na moom marché yu ñu kase am na si autorisation wu DCMP parce que du ñoom ñu ministère amul benn autorité ci marché public ARCOM la DCMP waaw donc bu fekkee ne ñoom am nañu ñoom seen autorisation donc kon moom boobu mun nañu wax ne foofu enfreindre loi parce que deful dara as de son propre gré loolu loolu la ñu wax loolu la ñu wax Euh, euh, léegi loolu il faut ñu vérifier ko moo tax leeral bi war maintenant man là où je vois le problème c'est sur la séparation des responsabilités entre le ministère et l'ONAS. et la qui a autorité à faire quoi est-ce qu'il n'y a pas un empiètement du ministère sur la responsabilité de l'ONAS par rapport au marché c'est ça ma question. mais j'ai dit quand j'ai entendu non non oui quand j'ai entendu euh, le ministre ne s'est pas prononcé ouvertement mais j'ai entendu dire ses services euh, même lui que en réalité euh, bu ñu ko defee quand il y a eu le changement de DG ils ont ressaisi eh, la DSMP pour dire que c'est maintenant l'ONAS qui continue la procédure mm. mais est-ce que rupture boobu pour man foofu la am problème donc mm. si tu vois les choses Euh, des deux côtés il y a des problèmes. Et c'est pour cela que on a besoin que ça soit clarifié. Et donc l'Assemblée nationale fait partie des institutions yoo xam ne ni. Hmm. ñoom am nañu responsabilité parce que ñoom dañu am cette mission de contrôle. Euh, de mmh. l'action publique. Hmm. et d'évaluation des politiques publiques. donc dans leur mission de contrôle de l'action publique. Le, la commission d'enquête euh, parlementaire. Mmh. doit faire son travail jusqu'au bout. Euh, pour ñu leeral que mhm. maintenant aussi Assemblée nationale il y a des problèmes parce que on sait qu'est-ce qui se passe avec les commissions d'enquête parlementaire mhm. am na ay sujets yu bëri yu les gens ont demandé des commissions loolu laa bëggoon que amul amul commission